asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi man la Mouhamed Niang mu Serigne Saliou maa ñëw di leen jox xibaar xibaar bi ma leen di jox nag mooy dab yi nga xam ne moom la ñu jàppoon ngir def ko fële ca Grand ci Serigne Saliou Mbacké annulé nañu ko rapporté nañu ko bëggoon nañu yàgg at waaye ku xam ne ni Grand Théâtre dafa am nu muy doxee léegi la jot nopp ci wax ni date yi reporté nañ ko annulé nañ ko ñu am ci mbégte nag ak bànneex am ci it ak cat ndax ku xool li xew ci réew mi feebar bi ni mu def ñu muy rayee ak ni dee bare dara du la naqari def nañ ci alal ju bari waaye wallaahi amuñu lenn lu ci lu ñu ci naqari dara naqari wuñ ci ak cant rek lañu ci am ngir sant ci suñu borom ci dogal yi nga xam ni dogal na ko di jox rendez-vous nag jëmmi jamono di ñaan yàlla jële fi feebar bii nga xam ne mi ngi fi bëgg a yàgg lii xew kenn xamul lu mu doon lii ñi ngi naan koronaal ñii ñi ngi koy woowee nu ne waaye kenn xamul lu mu doon sunu borom li nga xam ne moo mën a aar moo mën a wattu yàlla na ko fi jële ci barkeb Serigne Saliou ñëpp delluwaat ci seen sago xam naa ni naqari na leen yéen soppe waaye man yéen lay masaw jébbalal sa ruugi dem yàlla ay cosaanam dëggal